góor jàng ci bëgg góor dama jàng bëgg góor nag mu ne waaw ñoo dañu jàng di rek ñu jàng nag góor ñu bari génn nañ àdduna dee ñi amee melees melees nañ ko melees melees melees loolu melees melees tëdd dee saa rek di dee ñu du gaañu dara andi ko xam nga lu moo dama xam naa lu ma ñëw fii léegi ci jox góor góor sa nuy góor wala tànkam ñu ne ma ñëwal ba mu neex la bale jàmm ji yàlla rek Mama Madam. Nice nag waa baax. Gis nga Sénégal. Lamb ji war nañ lay wax. Gaye Combat bi neex na jaar na yoon. waaw. Mais bi def. Modou Lo def erreur. Moom Modou Lo Modou def bi. man. man Balla Gaye mën bah Lo na da ko de ko ya waay waay naaj man kaa jógal man ko jox sa tool xam lan di loolu bi ko Lo bi ko Balla dóore waaw bañu roofaloo waaw jàppante waaw arrière dem waaw na yàbb na yàbb président bi arbitre sifflé yàbb président wallaahi bu man noonu lay def dama ko yàbb arbitre sifflé porte bi laa ci Modou xam bari jom Modou jom koy jom jaar bari waaw jomal ba dee rek. ah si jomal yow wet nag bala ngay xaw ko rek nag. yii wetu bët yooyu moom ay faar moom dañuy wax ni waaye. moom loolu moom lim ay faar moom doxatu nag faar wax ci daa sens sax léegi. non faar moom yëpp la baal eh, ko Balla Gaye di doo dóore. Ah, <laughs> maa ko fekk Petersen. Mourlo Mourlo laa fekk Petersen maire yaay jaay karité. waaw lim ci jënd ci kuré karité. <laughs> keroog nag te maire bi dañoo koy jaay léegi bu tibb léegi di naaxal boppam. keroog lu mu laaj Mor lii la la yi. keroog lu ay faar. ko faari sinon ak moom. waaw faari man naa a changé mën na ko mën. gis nga gis nga naan ay faari sinon amul faari sinon amul gis nga gis nga ëmm seen. moo man Balla Gaye fu mu ko fekk wul. loolu moom wér na Balla Gaye mu fekk mu. mu mu man ko man affaire bi mënante la romb mënante la. dañuy daa mel ni moom man am na seen. moom moom la nga bëgg a rey am na seen. waaw moom la nga a rey na seen moom affaire man man rek ki na jàpp na kaay am na seen na ko kaay. <laughs> wulli ba mu nooy nepp. Modou na seen nag. ñoom ñett nag mm. ni combat ban man jekk na ci neex waaye jekk na ci naqari ak soof ban ban boo ñaan la da guerre ah ci non bu dee boo ñaan du soof yàlla sama jaar non man la da guerre la rasu mi ci rasu mi tat tat tat la guerre taxaw waat nag billahi na la barki seydina mohammed ak ni muy def bu wax day lox waaw barke seydina moom boy bo dëgg la sa bopp dama lay door armée na pire mu ne nii day rasu day wajju daal wa loolu kon la wa am na lamb yoo xam ne gaay ak mu jël jàpp di dugalat ci ha billahi day jënd rek day rasu ba ci saatu ñu delloo la de Guiers lamb nga ko Modou Lo ko mo ma Modou Lo bi cam boobu daa ras soros ba Modou Lo mu gi moy raam so ko mu jàpp ram no la de Guiers ya. raam ta tatafu ma ne waat ne Lac de Guiers mi sa ya, ko di nga fi fii gumóo mais nag naa koy ñaan bis bu da la de Guiers géej waay jeex no waaw koy wax nga dëgg rek wa mo moom lañ desale ku fay desati la gay fa des waaw waaw la gay do na fa daan na fa sàcceef daan fay guy gi booy ñoom ñoom wàcce waay ñëpp ñepp ñepp la daan dana leen rey. moom kay géej waaye moom xawma luñ ko luñ lu mu leen toppee. laa waaye fi mu leen jàpp baal. mais nag mais nag léegi nag Lac de Guiers rek bëri seen baal la. mais nag mbër mi ëpp sens si làmb ji. na fi am wërsëg. waaw muy Modou Lo. xam nga hmm. daal. daal jóge ci defet tak ci roi des arènes. non Modou Lo kay moom. jóge ci 100 millions daal ci 150. moom daa daanu mel ni moo daan. mel ni moo daan Balla ma daanu sax dalu ci roi des arènes. billaay Balla ma daan dañ ko arrière reculé ko. ñoo koy lijjanti la ay ñeneen ñeneen lañ koy lijjanti. mais Balla dañ koy jox Tapha Tine. Tapha Tine même moo fi sës. Tapha Tine lañ koy xalaatal Tafatine wala Bombardier. wala avance Bombardier yooyu lan ngay xalaat wóorul. Bombardier wóorul. yéen wóorul naa baal la moom. mën naa liggéey Tafatine mi nga xam ne duma woon na ko. tey. Tafa na. ah la a gis lii. bu may yëngu boo nee nii boo ko nuyu si banako jaaf tey seen gi. bi da naa këram gën a fa nekk kudd. mu kii ay loxo kudd rek boo dakkee mu ne la booy la. waaw tay bàyyiwul. tay bàyyiwul de bàyyi waxtaay du bàyyi. te mu doon laaj Yékini fan yee. yow loolu Yékini bi baax. Yékini ban day zibilé. ah Yékini day zibilé. nee na mu dox Yékini day zibilé. bàyyi lamb définitivement Yékini bàyyeegul de. ah day zibilé am day def xam mbokk mbër day préparé rek. tey jii bu leen ñokk yëg waaye tey am na jom. tey jii nga xam ne booy daan bu yëg daal mooy bu gën a ñëw lamb ci histoire lamb wala téex bi fii lan la muy <laughs> Yékini ba ma rek saa yi moom liggéey suuf si fii da bu mën a woon suuf lamb kanam gi daa fet bi day saa yi man bu mën a war de. <laughs> dem na mu benn moment buy bëreeti day ànd ak ama seen saa yu dem day yor tojatu seen. Ah, a wër. saa yu ñu mbootee Tyson rek ama seen ah, ah, na ko seetu baax mu ba comme daal la. ah Franc Seydou boo ko daanee pare mu topp. mu topp waaw di kaas daan <laughs> tam boo ko daanee mu kaas de naan daal ñu ma te day tax li bëgg suuf kat. Oh. bopp boog léppay tax noppaa suuf si waaye du tax mu waaye baax. Sénégal am na mbaa nga am na mbaa nga lam joo xamee nag mm-hmm. bu gaaw Balla Gaye Bombardier man bëgg naa combat la loolu bëgg naa combat la aman bëgg waaw yee ama balé aman? aman man ama tamit waaw ama ma waaw ama yit ëppul ëppul na kay giri giri rek ay giri giri rek nga jàpp aman nga dañu giri bordo courant ko jàpp courant maas na giri bordo ku ne bu ko yem ah waaw waaw waaye bés boo ko songee sa kaw waaw ba mu sa courant lépp giri bordo courant bi jàngul ci raw aman, yem giri nag non yem nañ ko trop ama ak giri waaw ngir mu taxaw rek. waaw ah maa ngi doole la de ah maa waaye booy ngir góor la neex la ñeme rek ngir mu taxaw rek. non guddi moom lim li nga xam ne la ko def. <laughs> ñam la benn daw rek kii la daf ne daf bu ma ko maam yooyu muy def cumbur cumbur yooyu ñamaat la mun daal loolu waaye boo ko fi jëwee di jàppante ak yooyu wóor mag la courant bi mun wàññi na ci doole ji. dëgg de courant wàññi na doole ji de. courant bi dina ko courant war na koo sarse waaye da ko desas. da ko desas courant bi da ko desas xam nga courant am garaate mag la bu doon gone la sax courant mën na koo sarse. mais ngir góor am na courant nag. Hmm. léegi naa téléphone bu jeexee da koy bokk <laughs> jeex ci koñ bi. et eh, giri doo ma dimbali benn baar laa dese ay yow giri jàpp ci giri bu ah, ah, mu ñaara. yaram yëpp courant xam naa boo njëkkatee. ok comme ci maas nga dee. moom day bokk booy. jabar ji ne bu tëddee bu guddi. lal bi tëdd sa day vibré. ndax courant ndax courant bi. bu ma doon maay moom damay kot bu ma jàppee amoon dama koy kot maas moom daal waaw waaw maas na la war a bëree. waaw bu mënu maam dafa la jàpp rek kott la maas. wuu bëgg na bopp. bëgg na wat man la bopp. waaw mais combat man ku ma gën a soof. Fatou Boy Niang bi. Lac de Guiers daa soof Lac de Guiers moom moo war a jéegu de. fay la ay millions. ay cinquante millions Lac de Guiers moo war di bëri. ah Lac de Guiers day bëri waaye. moo war di bëri. Lac de Guiers bëri man bëri lañ koy waxee. bu ñu waxee ñu ne mën na bëri. mën na xeex waaye man mën bëreem tax maa desee leer ndax day rasu rek. moom daal bu xëy na taxaw face à face. su ko Ini ki sa casamance inin ki so sa koko la ya? guerre inin ko xomala nak lan Ini ke nga ne ki tay mo nit billahi mom ke waxe rek nga ne bu japp mais ay bax li yor nak yo yo do ragal yo lam ci iya, am lay tapet di ay bu xat ki jassu lay na gis na ay tapet ye du wel du jeex am am na joxe fi amunu bay xam lo lamb ñaar grief ñaar waaw ñam sel ak modlo am sel ter la moom te fit moom ñooñu dañ ko am ñooñu ko doon dee sax dañuy taxaw. Balla Gaye bu feebaroon sax fit baa ngi. waaw ñooñu moom ñett ñooñu ñett ñooñu ñett waaw yooyu waaw bomba yooyu Bombardier moom Bombardier ñoom sax moo nekk fit Bombardier ñoom seen fit ñu ko jox ko Bombardier. waaye tapet yi. waaw tapet yi maanaam Tyson moom mooy seen maam ñoom ñëpp. Tyson waaw Tyson moom kuy tapet. waaw oh, première Tyson ak kii sa waay seen sa waa dëkk. waaw Tafa Tafa Tine. waaw Tafa daa ragal nag. waaw di ragal de. waaw daa ragal waaye ragal la nag Tafa Tine parce que sëñ Jos it mosaan yàlla na ko noonu. Jos man Jos moom ragal na tax mu bàyyi de. Jos Jos Jos it xam nga ne kii mosaan am na ko seenam. waa ji nag bu ragal du jéggi raay. bàcc seera. bilaay topp sax nangu ay. nangu ceen ceen gi Jos bilaay. moo eh? Jos ñu tàpp na yow. waaw waaw tàpp nangu ceen ba léegi Jos jëlwul ceen gi. ko fekk nangu ceen par force bu mu la Jos tàppet la nga. tàppet yi duñu jeex ci làmb ji bu ko la waxee sa waay tamit moom moom bu xam la moom. laaj de guerre Lac de Guiers kenn waxul loolu. Sa Thiès la. a Balla Gaye. na fit. yes na fit. waaw am na fit waaye mu ëpp daal moom moom am naam rek. c'est que moom moom day song ñoo ko xam ne ñoo ko ëpp doole ñoo ko mën surtout daa war a yemagum ba ci kanam. Mhm. waaye daa bëgg dem cour des garanties loolu teel na ca moom. waaw boobu noonu. waaye nag reporteur lamb yi am na ay défaillants tamit de rapporteur waaw ñi rapporté lamb yi nii. Hmm. am na ay défaillant. yooyu défaillant bi ndax naa mënuma face à face ak yow. wàcc micro bi saaga la waaw nga dem ah wax ca kaaw. waaw loolu ah li nga waxoon wax ba pare nag naan non violence violence. waaw non non loolu mën na demoo. saagal ndey gi ma saagal ndey ñu ne eh waaju baax non violence ah. waaw yaa ma saagalu ko waaw. eh Mor loolu li nga wax ba la ngay. waaw waaw wax ci kaw. xool boo waxee lu wax nah, ñaa déedéet loolu indi wuleen fii lii face à face la. am na ay défaillant mu kii. am na nga wax ko ci ñaaw. ñaa déedéet loolu war a wax. Nah, am lamb dañ na noo. am ci paay wax seen i bët lan bi Modou Lo Balla Gaye waaw Balla Gaye daan na Modou ba toog ci koom ba jóg benn benn paa baa ngi toog ci télé ma ngay leewtoo ñoo ngay kenn bu wax ko daan ko mu ne ah xam kontaan na ko <laughs> seen bëti néew bëgg rapporté ba timis maa léegi paa bi sol weeri la borom weeri paa bi sol weeri weex yooyu waaw daam ne ba yàqu ma tur lay ma mu dëkk caacar na jaay <laughs> cara dëkk mu ngi dëkk caaro Thierno Ndiaye yaakaar fële dëkk Dakar Grand Dakar ñaar ñaar Thierno Ndiaye waaw mi ngi caaro ji xanaa doo dëkk aare Thierno Ndiaye ci waaw ci armée waaw foofu dëkk Thierno Ndiaye génn gi fi ñu matt fa ñu jaay matt ma waaw kër ma matt ma ñoo del waxoo dara de man pour man Dakar la dëkk Thierno Ndiaye boobu bi palanteeru saaram bamee ngay gis ay bamee waxoo jàmm di dëkk armée ma fi yow mi fa suñu ñaari kaasu bisax ma wallahi dama 1000 francs pass ko ko dox kan nay waxam ci ak tam lay Sénégal am na lay de. xaw ma max la. max la benn mbargaan Macky Sall. max mbargaan nga am na Macky max mbargaan daa yóbbu lu joxe nag. ah amul dara. dama la Macky Sall nga yow sax. non non Macky Sall moom Marième Faye Sall la gën non de. ma dugg ko ci waaw ju ba quoi jaajam. di tamit waaw am nañu di. mais ngay dem waaju baax cion sekk talu man cion sekk gëna nay ñepp waaw cion talu cion sekk jël suñu carte sans donc ko fatte waaw gul dara kay ci ci tam xar gi waaw da koy jënd bi waaw bu dul bu dul jaay ko billahi wallahi jabar jaay xam nga xam nga ñooñu lay dimbal yalla dafa may jabar ju tal waaw Macky Sall bu ko yalla may non rek fay sal du baax Macky Sall man naay bu ke bu ko yalla may non jaagu bes bo duggé palé ba Macky Sall bu ngeul ba ci buntu tay nga dem Macky Sall bu ñu gor gor lu rew ma ngor suñu rew lu ñoko bok wala ma avancé nan nan ni bu mooy woo taximaan bi pour ma nga xam ne yoruma xaalis maanaam taximaan kër may faal ñaata la 2500 laa yor de. ma loo <laughs> bi de ma daf ma mi ñeenti téeméer dama jóg taxi. Macky Sall boo koy jóg foo ko seet day yoral de. waaye Marème rek. non Marème de bu àggee moom sama yor. di ne ñoo si ñi nga. Marème lay las boo ñëwee si ñi nga fekk ci mbedd mi ñib si. Ablaye Wade noonu la tàllee jabar ja nay. waaw Ablaye Wade yee waaw. waaw wax nga dëgg deew rétroversion la Viviane ngay dugg kër fekk ñu moom mu taal añ salaamaaleykum mu jël añ ba denc ko fële ah bon so non monsieur le Népal Abdoulaye Wade ko fii dafa dafa defe français dafa def français te fekk benn homme la donc la doon defar noonu la ñoom kay lekkul lekkul naanu moo ko tax ràgg Sonko dégg naa nag ku nay la Sonko nur na ko nag Sonko nay dafa yor nag gis nga yor na Sonko yorul Sonko yorul de am na ñoo xam ne du nay dañoo yorul Sonko mu yorul waaw mais nag ah njor soo moo ko yor de ah. Sonko Sonko yorul dara jox moo ko ci moom. jox campagne bi ba ba léegi ñaari sama rek lay campagne. waaw verte bi ak bu gris bi. ak benn kusi moom boobu. footee bii bi Casamance yónnee bi bi indi. <laughs> am na bi daal bu dee ki dëkk Thiès. waaye kii Idrissa bu toogee. moom afra boobu di may karaw. Hmm. moom lay di waaw am karaw waaw li bi la. neex na bopp rek bopp kooku nga xam na moom itam dañuy wax laay waat moom ñeme na nel de. waaye kii kay kii kay mooy ay ay ay ay kii ay ay. yi mu euh, kii nu mu tudd dégradé. dégradé ku mel ne mag yi. waaw yi garaaw lay def. waaw day dégradé yu baax day laal côté yi. day dégradé laal côté yi soo dee mu ñam ñaari traite yi. tere waaw. ñoo ñeme naa tere. waaye ba campagne yi di ñëw. ay ñaari tere lay def fii. deuxième ñaari tere koy wàcc ba nii afro fii kon kon benn côté ten ten ko nag. ten di lan ndax sa jàmm. gerte mooy ci kaw yow toogal foofu. maa ngi di jantal meen. kon tey mu neex. bi suñu blouson ci moom lañ ko amee. Abdoulaye Wade bu doon fiixlu grand boobu lay sol. Macky Sall blouson la sol sol débatteur. ah non Macky Sall daa entraîné. maa ngi ko nekk Macky Sall daa entraîné. Fane Fane Sall moom Sall mu si naa moom la kay. daa fexeel àdduna am de. moom yor moom. moom boo ko joxee yoroñu moom balaa wax ab tëyër lay wut mu ñëwal ko da nga xam sax la man caleçon sax. ah waaw ay kilo caay di nga demee caleçon. ay kilo ah, nag. waaw ay caleçon il faut ñu ci a ñàkk ah, a solo. ko moom jaaloo ñu dóor téeméeri yat. ah ne na fexe bu ñëw ne ndalee ko par du ñëw. ma ne ko nag yow nan ngaa doon téeméer ba sonn ndax njaaloo gi ci réew mi. waaw kon tey mu tey mu sonn. ku ñëw rek man de sama junni ñett day taxaw man. waaw kay yaakaar ak kan. man nga xam weekend bu jot. waaw waaw weekend laay <laughs> bañ. ay ma ne ko bari nga ci morom. waaw waaw. ma ne ko bari nga ci morom. Euh, bilaay kon nag gars yi jërëjëf. Prestige Thiès moom Prestige Thiès. Prestige waaw. Sonko dina leen dóor dóor dóor. dina kay. ah. dina kay. ñi sekk duñ jaal waaye am puurante rek. waaw bàyyi ba ko ñoom loolu kay jaaloo la. ñoom Amara ak gars yooyu waaw adama laa yërëm adama wen adama rek pour mu sol ñëw loolu dëggu ma sonko na wàññi téeméeri at def ko cinquante cinquante yéen lan ndax mu mën ñoo jóg ci ci dox anam dem ay waay sax baax jërë ngeen jëf daay fi ñëwoon jërë ngeen jëf góor jàng ci bëgg góor dama jàng bëgg góor nag mu waaw ñoo dañu jàng dina waay dañu jàng nag góor ñu bari génn nañ àdduna dee ñi amee melees melees nañ ko melees melees melees loolu melees melees tëdd dee saa rek